waaw maa ngi sant vraiment ci question bi ci thème bi. Mhm. c'est très euh, comme lu ñuy naan euh, justice kenn mënu koo daw. Mhm. man sama gis-gis ah. Mhm. Ousmane Sonko yéenewu ma ko lenn lu dul c'est un citoyen sénégalais ko yéene jàmm mu génn ci lii mais nit dem lii dal la da nga war a assumer nga xam ne danga nga war a uyu ci justice. pour être vraiment pour mettre toute la population à l'aise dafa war a uyu ci justice parce que lu ko dal kenn tegoo ko ko lu dul c'est des problèmes privés euh, maître kii wax na ko ak làmmeñam ak tànkam yaa ngi dégg donc loolu dal na ko dafa war a urgir ici c'est pas normal que Ousmane Sonko dem réfugié wu en Casamance dem toog fa créer le désordre qu'il crée là-bas di di di di di di di créer vraiment c'est c'est man fa laa dëkk mais lu fa xew ñun dañ koy ñaaw il devrait pas se comporter comme ça justice kenn mënu koo daw lu mu mënta def dafa war a uy ji justice ñu tranché affaire bi procès bi am ci jàmm ak salaam parce que le fait que les élèves du jàngiwuñu kii wax na peut-être la am na leneen lu ñuy préparer ça je vois pas ça parce que aussi trouble yi am noonu avec ces théories là comme ça ay grenades xale yu ndaw yi mënuñu génn dem jàngi c'est pas possible il faut que ñu toog kër ga même fii Dakar su amoon xale yi dañ doon daawuñu doon jàngi mm-hmm. donc ñun ñëpp ay sénégalais lañ dañoo war a delloo si seen xel xam ne képp ku am problème justice fii ba France Sarkozy yaa ngi noonu ñu ñu ñu condamné. Mm-hmm. fii ba France fii ba fu soo amee problème justice da nga war a jël say responsabilité nga dem uyu ji justice ñu ñaan yàlla nag soo demee uyu ji yàlla setal la man loolu laay ñaan yàlla mais nag yii nii xew nii c'est pas normal. te eh, nag ça peut pas ça peut pas continuer ça peut pas continuer un citoyen comme Ousmane Sonko moi aussi je suis un citoyen ma tooñ nit ñu am un problème privé on te convoque à la justice ngay jaabante fii di dem fee di dem fee di créer le désordre di inciter la population à des pillages à des théories je pense que tout Sénégalais conscient dafa war a ñaawlu loolu Ousmane Sonko doomu Sénégal la ñaanalu ko lenn lu dul jàmmam man personnellement mais nag ce qui se passe comme ça ça je pense que ça va pas continuer hmm. état kenn mënu koo daw te justice lépp a ngi nii lépp leen léng ñëpp gis nañ ne lii la demee c'est lui-même qui avait fait une, euh, euh, une, conférence de presse man Ousmane Sonko je pensais que lors de cette conférence de presse. il a wax bi lañu yàqam. oui procès bi vidéo yaa ngi nii. yàqamti naa projet bi. da am nu nu mu mënta demee na am mais ñëw na ba egsi na achimel nga dem. taxaw setal sa bopp su dee yow vraiment li ngay woote dëgg la ci yow. mais nag nekk fii Dakar jékki-jékki nga dem toog Casamance nga ne ay booy ñoo lay kii mais ces booy là quand même c'est pour faire tuer les les les enfants c'est pas bon. loolu dañ ko war a ñaawlu te man vraiment j'appelle euh, fort que dafa war a delloo si xelam xam ne dafa war a usi suba kenn xamul yàlla mooy joxe nguur mën na fee nekk kenn xamul su fi nekkee kenn ñaanal ko aussi luy dal noonu lu muy traité noonu l'État suñ ko traité du ko neex du ko neex il faut que mu xam loolu donc dafa war a delloo si xelam xam ne justice kenn du ko fooyee yoon dafa am dans un état de droit dafa am institution yi kii tu penses que l'État va laisser ça passer ça c'est une défaite pour l'État il faut que mu uysi ñu tranché si c'est il est condamné ñu xam ko suñ ko condamné ñu xam ko dañ koy ñaanal ñu bañ koo condamné man loolu lay ñaan yàlla